مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال ma bett rek may na la wax dëgg yàlla non dafa non si am ñoo xamante ni samay noor yoo xamante ni yi mel nii samay penaat yi lañuy bañ la ñuy bëgg di gis di ci jaare xam nga ku ci mel ni xam nga sama groupe dekki lam bi nga xam ne ñooñ sama defet rek la ñuy wër xam président Gris Bordeaux xam nga ñoom laasana Cissé ak ñoom xam nga yi waa dekki làmb yëpp Maodo Giri 2 ñooñu nga xam ne samay defet rek la ñuy wax dëgg yàlla ñu ngi julli ñu ngi woor waaw waaw ay Baye Fall lañ mais ñu ngi julli ñu ngi woor Baye Fall bi julli moom yokk yokk yiw la rek waaw yokk yiw moom ñu ngi julli ñu ngi woor wax dëgg yàlla. waaw booy julli booy julli tisbaar kàmbar da ngay tari Faatiha ak saar rek julli ñaar rakk taaya daal di jóg daal di julli euh, defal sa ñetti rakk dem ñeenti rakk waaw ñeenti la waaw nga sëlmal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 أهلا أهلا كيف الحال